حرس قامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا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 li Seydou si wax dëgg la nee ñun ñëpp ci njaboot Soxna Mbathie la ñu bokk nee ndax nit ku ne boo ko yilifee da nga koy yilife dara nee def mooy suñu sëriñ la ba noppi def ci njabootu boppam ba noppi suñu taral fu mu toll nee kon ci ñu délégation mboolem fekk rek ci délégation bi la bokk. waaye li tax ma jël kàddu. boo xam nee bi lagara. nee sa càmmiñ. sa xarit. Alaaji Alassane nee na lii fekk nee bitim réew la ko fekk. waaye yow da ngaa dem ba jeex. nee moo tax. ñii toog Ismaïla ak man Modou mi ak Sane Mbaye ak ñi teg jotaay bi ñooy Alassane mais kon ñu toogee mais ku xam suñu diggante ak Alassane day mel ne Alassane wutu mais moom nag nee na wàcc ci avion bi moo tee jóge si bu ko fekkoon ci réew mi nee damay ànd ak yow ba mu jeex te yow xam nga moom xam na yàlla xam na ñoom yàlla mën na xam na yow yaa ngi ko jël. kon kooku ñu déglu si li dem ñaar waaye gis naa ne Mamadou Ndiaye bi toog moom it mooy jot ay kàddoom nee na si jëm ak sooy bu nee ko dëgg ak sa tey wàññoon la nee sooy bu ñàkkul moom mooy ñàkk ndax sooy bu xaritam la. genn wàllam la ñoom ñaar dinañ waxtaan lu xel yëgul nee na bu guddee dinañ waxtaan loo xam ni lu leen di jëriñ rek la te sooy lu baax lu mu nekk ñoom ñaar ko ànd kon ne ñu ngi koy jaale bu baax a baax mooy jur di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko àjjana yi fii taw moom ak suñu saay bu set day jóg moo doon ko nekkaat loolu bu sooy nag xaritam genn wàllam doomu ndayam bi ñëpp waaye Baye Modou Kane yegg na ci jotaay bi ñu ne ak Mame Ndiaye Sakho eh, maa ngi koy dee si Moussa Gueye bii mais eh, Imam Moussa Gueye nee eh, na nii mi ngi doog a ñëw nee na ñu ngi fekk ko nee na fii ak du doog nee na xaj bi nee gërëm ci diine bi ak gërëm ci tuwaawam nee na alaaka bi nee wax na ko léegi. nee Touba ak Tiwaawan nee lépp benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam délégation bi ñu gën cee ràññee Mourou Mamour Lo Serigne Thierry Mbacke li nga xamante ni bu jógee ànd ak ñoom Mourou Mamour ñu ko tuddee moom Serigne Thierry pour ñu leen doon délégation bi mu ànd ak Mamour lu mu wax lu soxla si lu soxla si waxul waxul dee xool ku soxla ci xoolul xoolu ko doon taalibe ba pare doon doon ci biir kër gi mi ngi nii toog Modou Mamour Lo mu ànd ak kan Moustapha Babou Mame Cheikh Babou mu baax mu yaru nii nga xam ne man ci démb dafa jël soxna soxna doon soxna baali jox ko njëkk la waaye loolu boo ko defee def nga li war def nga li nga xamante ni si macha allah ko dégg xam ne def nga réew mi yëpp di astor di alaaji Seydou si lii toog ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay fi ngeen fekk al ajaltu am ngay lii toog moom it ci biir délégation Soxna Mali mën na cee dugg waaye mën naa ñëw ci turu boppam ndax digganteem ak ndax kat kër Soxna Mali famille la ñun ñëpp bokk ndey ñoo bokk baay Soxna Mali yaay ñëpp moo leen jaboote ñoom ñëpp ñu bokk ndey bokk baay ba pare yéenante jàmm lu ci sa morom xewle boo gëstoo say morom loolu nag mooy ki nga xam ne moo leen boole moo leen yar ci jikkoy boppam muy lu baax kon soxna Amaama Ba ak soxna Nabou ñoom it ci délégation soxna Baali la ñu bokk waaye bu ñu waxee soxna Baali Muntaxa Ismaïla Mbaye toog nii am na ci kàddu balaa Seydou ñëw ak Mamour Lo ndax moom kat doom la moom ci soxna Baali Ismaïla sa diggante soxna Mbaye ak sa diggante Bijou Mamour Lo nee ab dëj nee da koy mbir mu sacré nee nit ñi fi toog ñëpp nee bâche bi nee nañ ñu ko mos a baasal nee yéen yéen téléphone yi filmé nee ngénte mënees na koo filmé nee jéeg mënees na koo filmé waaye ab dëj jaarul di caméra leer loolu dafa ëpp leer te loolu it ñun ñu wax ñu toog délégation bi toog délégation bu baax délégation bu gën di délégation day ñëpp di délégation koo xam ni bu bànneex amee boo gëstoo ci délégation waaye bu naka amee boo gëstoo ci délégation muy yaayu bisu ngóor yi ñuy toog. suñu dagana nii nga xam ne nee naa ko sa baay kan na waaye dëkku la askan wi nga bokk kenn mënewu la ci sa yaay dina jur dëkku la say mag yi nga bokkal dëkku la sa rak yi nga bokkal dëkku la waaye sa doomi bokk yi nga jur dëkku la léegi bu délégation bi ñëwee da nga Modou Mbaye maa ko naan mun ma dama ko woon ma biir mi mii sama mag mu ñëw toog ndax délégation bi mooy délégation bi ma gën a ñor ci délégation bi su ma di def lépp neex na ma nag waaye sama délégation yaay bii day sama délégation bopp maanaam ñi bëri jub doom ñu def ci biir Dagana te aw tur boo ko tuddee jikkoom neex na kon nawul jikkoom doo ko tuddee sa doom mu foog doom ñu biir Dagana kon tey bu seen waajur yi génnee àdduna ngeen toog ñu dégg yéen ñaar ku ñëw bi ñu dëj bee tax déedéet lii démb la waaye délégation bi ñëw ci délégation Sonapar yi ñu ndaxaa Sonapar yi seet sooy bi jàmbaar yi diine cabinet borom jurul cabinet borom jurul ñu fay seen boroom jamono di Serigne Saliou Mbacke xam-xamam màcc lool si fajum cosaan waaw waaw Serigne bi ñu ni ko tey foo génnati mënuñu xanaa médicament borom jurul yamuk lool tolluwaay jamono dara doxatul si néegu sëy naxtale doole góor la yokk di ko yokk ndoxum siti hémorroïde ballonnement diabète tension da koy faj ma ni ko wàllum bët nag mu ni ma aw ma si moroom waaye yit perte blanche dama ko mën infection prostate gàtt sinusite ak règle douloureuse faj rek dong kase borom jamono yamul foofu de nee na sëriñ si bu ñuy def benn moom ñaar lay def ñaar listixaar ak seet mu ni ma maa ngi mbuur wooteel gaaw ci 76 611 33 60 Touba nga jëm 78 578 68 40 bu fekkee Dakaaru Njaay nga jëm 77 199 93 Serigne Saliou Mbacké borom jurul